أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو نيب تا دينن زيار بو باخا باخ دي جوخ كين كو نيك واتواي بي يالا تي ياو دي نيو مبولم جيت ييب دي جيتال تي نيو بي كي دي فيغا خامني نيو نيك تي بوبو جابوت جي تا موي xalifa généraux yi nekk ci réew mi al muridiya Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan mu yàgg fi loolu te wér noonu lay nuyoo Tijaan xaadir Laayeen Ñaseen bàyyiwun kenn ak képp ko am ci cër ci lislaam rek ñu ngi nuyu it kilifa aada yëpp di ci jiital jiitum réew mi ak ñi mu njaboote ñëpp te senegal rekk tax leen a jukk ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen ziyaara bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu soppay sëriñ bi ak xarit yeeg taalibe yi fu ci waaye man di nekk ñi koy bége te mosuñu koo gis jaxalatan lu dul image bi ñoo ngi leen di fekk fañ nekk di leen jox suñu loxo suñu loxo xol di leen ziyaara bu baax te di leen ñaanal jàmmi suñu borom mboolem gox yi fase fasantikoo yi fii ci réew mi di senegal ak mboolem continent yëpp États-Unis Amérique Asie bàyyiwun fenn ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen ziyaara bu baax a baax di beral nuyoo akub ziyar ñi nga xamni nak nag dañoo abonné ci seen bi di nasu TV media di wax képp kuy seetaan rek na nga abonné te bés kolos bi tay jam vidéo yëpp bo defé ñu and ko ak sëriñ bi ci liggéey bu am solo bi muy def sëriñ bi ñoo lay nuyu di la wax alayka wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum khadim mhm. wa rahmatullahi wa barakatuh mhm. ñu delloo nuyoo mboolem koo xam ni yaa ngi ànd ak ñun ci seen seen bu màgg bii di Nasrou Média TV di ko diglu di ko topp ñu bare bari abonné ci di ci jàng seen diine mu lëkkaloo ak les Amis de Nasrou muy groupe boobu nga xam ne sunu sopp yi nekk ci àdduna bi yëpp mhm. ñu ngi koy déggee mhm. wax dëgg yàlla dañu encouragé mhm. parce que encouragement weesu wut li ma doon topp ci sama diine maa ngi koy yëg ci yéen te sallallahu alayhi waxoon ni jullit yëpp kenn ku nekk ci ñoom balixoo ak nii wala bi aaya wala bi aaya ku ci nekk ci na nga fexe ba jël dara ci diini ji mhm. fekk nit ku sori fa mu nekk te amul ku ko jàngal mhm. nga déplacé wu fekk ko mhm. soo amee moyen soo ma nee fa mu dégg nga wax mu dégg ngir mu jëfe ko ngir loo xam ne képp ku ko jëfe yàlla defar sa àdduna defar sa àllaxira te mooy lislaam suñu borom bind ko toll ni rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk xaatama nabiyiin donte la mooy imaamal mursaliin nga dajeek moom ci jamono ba adunay tukki te bokk ci yoonam bii musiba magatu ko waaye képp dugg ci diineem ji te pratiqué ko nga xam ni yàlla miy dimbalee dimbali na la te mooy la wax ne xat ab laha man tasakka wala xat aflaha man sakkaha boo jël baax na day ñaari saar suñu borom doo wax ni ku ma yóbbu àjjana teral naa la xat aflaha man sakkaha waaye ku ma yóbbu naa la toroxal naa la man dasaaha borom bi nag bu la naree yóbbu àjjana da lay xeetal ci sopp rasulullah sallallahu alayhi bëgg diineem jiite di ko jëfe mom mom nak wax ni diine ji luñu tuhal la ca mom ak ñi top ci mom ak ñi top ci mom ak ci fi du lu kenn di jog ber sa ak bok ni ni la ko dikki ba ni la ko mënee kon nak te ku dajeeg diine ji te duggoo ci dugg def na musiba ndax alxuraan wax ni wa man yabtaghi ghayra al-islaami falan yuqbal minhu huwa fil axirati minal minal xaasiriin yàlla xam na loolu. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci beneen diine ak diine bu mu mën a doon ak bu mu mën a doon yooya du dafa périmé nekkul lu bon baaxoon na waaye bi Rasulullah alayhi salaatu dañ ko dañ ko teg yonent bi léegi mooy conduire. Mhm. kon nag du jaadoote kenn di yëngu ci leneen. diineem jooju nag la wax ni benn mu kàllaf bu mu ko jëfee. Mhm. lu dul da xam àttey diine yi. hukmullahi fihi su baba nak nasr ci média mii gis jël engagement fas soldat sol dem ci continent amerique yep yëpp dem union européen yëpp même makkatul mukaram ga ga yonent bi ne tëdd fa sa fan wacc fa mu fekk len fa boole ko Afrique gi ñu nekk ñun talal ay laaxam fep alxuraan waxoon ni wax fi janaaka dama ni tabaaka minal muuminiin noonu lay def moom mhm. yaatal ay laafam mhm. ñëpp dugg ci ron gi mu jàngal leen diine mhm. ñëpp jëfe diine ñëpp am ngërëmul yàlla ak ngërëm rasul alayhi salaatu ak cause de jataayu diine bii nga xam ne ñoo ngi koy def fii kon nag nu siyaar leen fii ba Amérique ak tataay fa nekk ak papa yi sœurs yi ak frères yi bàyyiwuñ kenn suñu xaalim di leen sant ci événement yi ñu bàyyi ko mhm. dafa mel ni nasum jamono yi bari na ay ay yëngu-yëngu waaw loolu sax ndeysaan waaye lu xew lu ne rek seen action yi mhm. ñu taxaw ci boole seen kàddu yu rafet seen mhm. ñaan yu rafet ak seen i jëf yàlla na yàlla fay leen allahumma amin amin amin amin amin déplacé nekk ni ma ko waxee fii laay waxee foofu ñu santati leen te gërëm leen te ñaanal yàlla na leen yàlla fay wéetuñu ci dara lu ñuy def ngir yàlla ak lislaam rek a tax non ngay def dem ba Arabie Saoudite ak li ko ci ëpp ñoom sax jóge won nañ màkk ñew hmm. gàmm ci fi lolu ko gëna a lay am hmm. ki ñuy gàmm ci mom nga dekk ak mom gàmm jot nga jël avion dem senegal Sénégal ñew nasur fanan ak ñu bon noppi jëlaat avion delat màkk ñu karam hmm. lolu fi la fi la ci cofeel Afrique gi bayyi wuñu fenn fu waay nekk te dina safoo nga xamni ne chaque jour contact ya ngi dox ma ngi ci profité yëpp yu laaj yu ngeen am da bëgg ñu ko tontu bu ngeen demee ci numéro soxna Xaadim boobu affiché foofu wala bu seen Xaadim bi bàyyi ci seen laaj ba ci as ñoom daañu ko indi ci penc mi ñu tontu leen parce que yéen rek lañu fi nekkal ak seen ñu ngi ci jot yu bari nag barakallahu siyaar kilifa diine yi ci réew mi siyaar kilifa aada yi ci réew mi ak ñu bokkal tey jataay bii ci saal bi ñëpp ñu ndoktal leen sargal leen di leen ñaanal tawfeex sutura bismillaahi jërëjëf sëriñ bi ñoo ngi lay dalal bu baax ci suñu émission waxtaanu diine fii ci atu bu sedd bi ji nasru minallahi wa fatahun xaribun wa basiril muminin boo ko defee sëriñ bi def nañ fi ay jotaay jotaay ci faatiha waaye daa mel ni géej la gu amul tefes nga xam ne boo ci dógee da ngay féey rek di xala tooy di xala tooy waaye amul fu mu yem ndax day meroo suñ borom bu matale moom faatihatul kitab mu mel ni defoon nañ ci ay émission waaye am nañu ci doy doyulul di ko sàkkuwaat ak secret ak yuñ ci mën a jariñoo bokk na ci waral jotaay bi ñu war koo waxtaane tey waaye it am na jamono ci ginnaaw waxtaan waroon def ci seen bi Nasrou TV Média ab ajuma ngay waxtaan doomu adama ni ko suñ borom bindee nga xam ne ndakate moom àdduna la ci mat sëkk nga xam ne dara manquéwul ci moom environnement bi yëpp it dafa daje ci moom ci kaw ak suuf ak ndeyjoor ak càmmoñ mu mel ni waxtaane daa am ñoo xam ne dafa dafa desoon leer seen bopp ñu du ko sàkkuwaat ñaar yooyu dañuy indi ci jotaay bi baaxee ko bokk jullit yi ñuy seetaan ñëpp damaa xamul nag dañ ban ci dañuy njëkk ci ba wala ñëw ci fatiha bi insha allahu taala